faatu bakkanam xaaji Babacar. jërëjëf Oustaz Mor. RFM matin. RFM matin. émission bi yee waa Sénégal. RFM matin 7h40 euh, sunu euh, gan Amadou Guèye salaamaaleykum. waaleykum salaam. yaa jiite euh, parti bi di UNIS. union euh, des indépendants du Sénégal euh, di nuyu Georges euh, Déthié Diop da ngeen a génne bataaxal di ci ŋàññ li ngeen woowee irresponsabilité administrative Macky Sall nga ni yàgg ñi nga àndal Macky Sall tegul fenn ni muy doxalee jamono ji na ci premier ministre bi nga xam ni ci lu jàmp dañ ko fee sampaatoon ndax ne ñu day jàpp ndax li mu jiite Union africaine di rub at ba fii tabul premier ministre ngeen jàpp ni doxalin woowu euh, tegu ko fenn. waaw Babacar jërëjëf ci invitation bi effectivement dañu def communiqué boobu pour ñi euh, ñàkk nomination premier ministre boobu ndaxte ñu ngi fàttaliku le 13 décembre 2021 le président euh, voté assemblée euh, assemblée nationale voté loi boobu di delloo si post premier ministre wax nga sànq lu tax mu ñu indiwaat ko kooku bokk na ci li mu wax ni dafay jël temps bu bëri pour Union africaine président nag ni ñu ñëpp constitution daf ko tënk loi euh, loi boobu bi ñu ko jëlee amoon na six jours yi nga xam ni euh, dafa waroon dem conseil constitutionnel amul benn recours bu ñu introduire ci loi boobu mu war ci des fukk euh, juróom-ñetti fan yi nga xam ni moom la amoon pour promulguer ko donc au bout de quinze jours président il est tenu de de de de de de mettre en exécution loi boobu nga xam ni. borom xam-xam yi nee nañ nag euh, constitution bi àppalu ko ci loola. waaw loolu man def jàpp naa ni dégg naa ay borom xam-xam ko wax mais loolu erreur la xam nga délai dañ koy wax quand ça s'applique euh, dans certains cas maanaam lu mel ni loi ñu ne suñ ko voté ndegam nit ñi mën nañ attaquer loi boobu dañuy jël délai ne am na six jours yi nga xam ni mën nañ def président am na huit jours pour mu promulguer mais am na ay dispositions yi nga xam ni quand le délai ne pas applicable constitution bi di ko tudd constitution article 53 dafa ne gouvernement premier ministre la ministre yi ak secrétaire d'État kooku su xasee ba wax ko ba pare ba ñu def ko ci constitution bi soxlawul délai. suñu nee bu ñu ko bindul Amadou yi lu ko neex def. dé loolu loolu matadik sunu sunu luwaay yi la xanaa. non non non loolu loolu loolu euh, constitution mënul su su ne par exemple président de la république dafay dafay prêter serment amul fenn fu ñuy ñëw ne dafay jël délai avant mu nekk président dafa am ay dispositions yoo xam ni c'est ça s'applique automatiquement de manière générale disposition yi c'est d'application immédiate. encore une fois délai dañ koy tudd fi nga xam ni c'est applicable gouvernement su taxawee ñu ne premier ministre moo ko constitué ak ministre ak ay ministre ak ay secrétaire d'État kooku soxlawul ñuy wax président de la république da ngay jël dix jour pour nommer premier ministre jël cinq jours pour nommer ay ministre c'est d'application immédiate. tey bu fekkee ne constitution bi dafa ne gouvernement premier ministre la ministre ak i secrétaire d'État euh, kon da nga jàpp ne gouvernement bi fi nekk illégal la jaarul yoon. waa xam nga du ma ne illégal maanaam euh, mu ngi en tout cas en état de violation des dispositions de la constitution effectivement fu mu nekk nii bi loi bi duggee en en en en en vigueur automatiquement le gouvernement est démissionnaire kooku moom c'est un constat ba pare dafa am ay conséquences yu si am parce que xam ngeen ni euh, euh, premier président tamit dafa am ay ay décret su koy jël loi bi constitution dafa ne premier ministre daf ko war a contresigner maanaam poste nomination président xam nga démb ak bar démb defe naa daaneel na euh, directeur DER nommé na monsieur de Ladi Cheikh Bakhoum les postes de nomi les, les nominations du président de la République doivent être contresignés par le premier ministre kon acte tey boo jël de nomination aux emplois civils kooku su signature premier ministre nekkul c'est entaché d'illégalité moo tax li muy def nii ça porte des conséquences sérieuses moo tax ñun ñu ne dañuy jóg dénoncer ko mais du ñu yem ci dénonciation parce que lu tax ñun jàpp nañ président di def lii mooy ni ces actes administratifs qui sont entachés d'illégalité ne sont jamais attaqués justement au niveau des instituts de de de la chambre administrative te ñun li ñu yéene def mooy ni à partir de lundi. nous allons introduire un, un, un, un, recours en illégalité et en annulation de ces actes, de ces décisions du président de la République. Parce qu'encore une fois, ce sont des actes qui contreviennent à la Constitution, encore une fois, euh, les actes, en dehors d'un de, de, de, de, certain nombre d'actes qui sont des prérogatives exclusives du président de la République, la plupart des autres actes, des décrets du président de la République. waaw ma ne président de la République décret yi muy jël am na yi nga xam ne ay sañ yi nga xam ne mën na ko signer te du soxla signature premier ministre waaye li ëpp ci ay décision am décret yi muy jël premier ministre daf ko war a contresigner kon loolu su jëlee ay acte de nomination mel ni daaneel benn directeur wala nome benn directeur kooku dafa war a am signature premier ministre su ko deful acte bi matul te ñun. loolu dañ ko bu yóbbu ci cour suprême parce que nag mooy chambre administrative bi nga xam ni moom mooy àtte acte administratif yi décret arrêté ay acte administratif la su jaarul yoon mën nga ko indi devant la chambre administrative de la cour suprême mu wane ni lii jaarul yoon te loolu dina forcer euh, lu gouvernement à venir euh, se prononcer sur euh, ces manquements constitution bi waxul expressément ni diir gii la war a nommer ab premier ministre mais est-ce que la procédure d'urgence Euh, bi ñu koy wootee assemblée nationale voudrait également. Mhm. une urgence dans la nomination. Georges ko doon xaw waaye yow itam de. <laughs> waaw non naturellement waaw wax dëgg ñun suñu suñu wolof bi moom dafa xaw a euh, exactement xam nga xam nga loolu rek dafay wane presque euh, président de la république quand même moom moo ñëw ak procédure d'urgence yaa ngi koy fàttali. ne dafa jàmp soxlawul waxtaan soxlawul laaye biir dafa bëgg ñu votel ko loi bi. pour mu indi premier ministre. waaw xam nga soo ko waxee. dafay wane ni yow taxaw nga temb pour indi poste premier ministre kon yow suñ la votalee loi boobu nga toog léegi trois mois ba léegi nommé wu premier ministre encore une fois te loolu dafa am ay jeexital ci sañ-sañ yi ngay jël mais kon loolu dafay wane ni moom fu mu nekk ni man jàpp naa ni dafa sax xaw a réer ndaxte nag moom moo ñëw 2019 bi ñu ko falee xanaa mbir yi daf ko bett mu dindi poste premier ministre ñëwaat ne moom Euh, jàpp na ni daal dafa soxla premier ministre ñu jox la sañ-sañ boobu ni nga ko waxee mu def ko ci procédure d'urgence léegi dellu na nee na mu ngi xaar su ma déggee nit ñi di wax dafay war a mën war na mën a xaar ba après élection euh, euh, législative damay ne mais ñii ñoom dañu xalaat ñi constitution bi dafay doxe ak xelu Macky sàll wala constitution mooy li nga xam ne ñun ñëpp dafa ñu dënk. non mbir mi moom euh, ak ak yabaate mi ngi mel ni am na ci ndax. Euh, yabaate bu rëy euh, Babacar ndax ndax réew mi moom. Mm. waroo ko jiite ba noppi di ko jiital ci say calcul. Euh, loolu moom ñëpp mën nañ cee d'accord. bu fekkee dafa am jafe-jafe tabb premier ministre ndax ay euh, jafe-jafe politique yu am ci biir njabootam. Hmm. loolu moom engagé wul Sénégalais yi. engagé wul Sénégalais loolu moom mën nañ cee d'accord. waaw loolu moom lu leer parce que ba débat juridique bi moom loolu moom dañu lay wax ni ñii xalaat nañ lii ñii xalaat nañ laa. ne amul délai bu ko bu ko tënk. moo waaye nag bu fekkente ay ci ay calcul. Hmm. ak euh, xaw ma ku may tabak bu ma tabbee ñii mer ak ñoom seen kooku moom. jaadu jaaduwul mën nañ cee d'accord ak yow. moo tax Babacar ñun jàpp na ni jéego bi des mooy jël un acte administratif comme décision yi nga xam ni conseil des ministres jël na ko ñu attaqué ko au niveau de la cour suprême parce que nag président mën nga am sa xalaat mu am xalaatam mën nga am point de vue juridique am mu am point de vue juridique am mais soo jàppee ne li muy def sa illégal yoon nee na la. dafa am benn kuréel bu tudd chambre administrative cour suprême da nga fay indi act bi pour wane ni lii c'est entaché d'illégalité bu boobaa forcément l'agent judiciaire de l'État je dis pas le président de la République l'État va venir s'expliquer sur la, la, la, la sur ce recours qui est, qui, qui est introduit et ça forcera le président de la République à, à quand même de de de, de cette situation là qui est qui, qui vraiment anormale fii Sénégal nag ñun dañuy wax état de droit dañuy dañuy ndamoo nekk di démocratie dëkk bi nga xam ne su nekkee lépp matul tamit waaye dañuy doxee si droit waaye loolu ñun waruñu ñu toog di ko seetaan dénoncé ko rek yam fa am na ay kuréel yi nga xam ne mën na leen saisir te ñun loolu la ñuy defi incha allah. ndax am nga ak euh, Birahim Seck bu Forum Civil. bi mu eh, évoqué li njiitu réew mi waxoon bi muy restauré waat poste de premier ministre am maanaam charge yi nga xamante ne moom la am eh, ci Union africaine nekk président en exercice eh, day laaj temps bu bëri. te du mën a boole ñaari yi il faut que mu am ki ka toogal fii te mandaam boobu muy commencé wéy waaye bay premier ministre ba léegi amagul donc ce qui veut dire la mu doon wax ay lay la. non man gëw ma ni mandat manda boobu moo taxoon man jàpp naa ni demoon na ba toqi ba gis ni mbir yi ëpp na ko doole que dafa soxla poste premier ministre donc je pense que loolu dafa demoon ba gis ni lii dëgg dëgg dëgg moom mënul moom moom dong mënul doxal Macky Sall li si des nag affaire union union africaine. mandat union moom taxu koo diis lool. ndax ay ay ay woote téléphone la ay Vladimir Poutine ak yooyu. mu ngoog compliqué wul. teg teg te tag te nag euh, euh, am na président commission bi nga xam ni moom mooy doxal activité yëpp moom dafay présider ay ay ay conférence des chefs d' état donc euh, rôle la donc nekkul li nga xam ni daf ko daf koy ko. daf koy jël temps donc ñun jo jà loolu jàpp noonu lay la yéen a ngi fàttaliku condition yi mu ko defee ñëpp sax dañ ko doon wax que mbir mi dafa diis àttunatu ko je pense que dafa dafa dellu ci euh, maanaam loolu mu gëmoon ni en deux 2019 bi ñu ko falee mu xalaat ni sénégalais yi bëgg nañ ko ba nga xam ni mën na jàkkaarloo ñoom faj soxla yi mais dem na ba gis ni euh, wax dëgg yàlla. dafa mel ni tamit euh, Coupe d'Afrique bi gaynde yi gagné dafa foog ni moom fi ñu toll nii kenn mënu ko téye am na ci droit am. waaw non loolu moom def naa su ko xalaatee moom mooy nax bu ko. stade beeg yooyu. parce que jeunes yi jóg ànd ak moom di di fête defe naa xale yooyu ak sénégalais yëpp réeruñu. coupe bi lañ doon féete nekkul Macky Sall lañ doon féete ku ci bëgg jóge nag xalaat ni yow lañ doon tàccu yaa ngi yaa ngi yaa yaa ngi nax sa bopp. gëm nga ni day raam di pes ba léegi am jëm wutali troisième mandat wala sañatu ko. waa xam nga euh, loolu moom euh, def naa dañ ko koy bàyyil parce que nag léegi yoon bi leer na xam nga 2012. Euh, waxu constitution troisième mandat leerul woon ci bopp ñi léegi leer na ci bopp sénégalais yépp moom nag dafa am sañ-sañam su nekkee euh, ñeme na euh, li ko daloon mars ak li ak li gën a yées egsi euh, na ko jéem sénégalais ñoom xam nan ni ndax Macky Sall am na troisième mandat waaye nag élection yi élection yi passé naam perte nañ ñoom dëkk yu bëri mhm. waaye buñ dee waññi xob yi moom ñu ëppale foofu xob opposition bi loolu noo ko jàngatee non ñoom seen xob yi passé wul à peu près un million cent ko la coalition Benno Bokk Yaakaar à peu près un million lu ci mën rek ñoo ëppale opposition bi. waaw ñoo kooku kooku kooku kooku weddiwu ma ko euh, mais li leer ba leer mooy seen doole wàññeeku na bu baax kuy daanu nag dangay ngay jóge ci kaw li wàcc te élection législative yi jàpp naa ni suñ demee xam na ni dinañ gën a dinañ dinañ seen doole dina gën a wàññeeku loolu tamit ma bëggoon fi sànni benn kàddu bu ndaw rek. ci yooyu. Mhm. Euh, parrainage la parrainage mhm. mooy am euh, alors que mhm. CEDEAO cour de justice de la CEDEAO am na ab décision ba nga xamante xamante ne jëloon na ko ba euh, ngir Sénégal dindi parrainage boobee waaye moom ci wàllu boppam euh, defaat na ko ci élection législative yii ñu euh, ñu dëgmal mu nar a doon une première fois au Sénégal. waaw Georges te loolu sax. dina nekk pour les partis politiques. xam nga sax loolu dafa nekk mbir mi nga xam ne tamit ñun dinañ ci waxtaan ak yo d'autres acteurs la société civile et politique pour pour attaquer aussi loolu parce que ma fàttaliku parrainage. ci constitution bi dañ koy tudd rek ci wàllu élection présidentielle ci constitution bi ci wàllu élection législative ak collectivité territoriale kenn tudd fa parrainage ci code électoral la ñu tudd parrainage ci wàllu élection locale ak élection législative te gis ngeen ni élection locale yi kenn appliqué wul parrainage lu tax parce que CEDEAO yéen ci waxtaan ba ba jubóo. déedéet CEDEAO CEDEAO moo moo ne dañuy dindi système parrainage bi. moo tax appliqué wuñu ko ci local yi. mais dañ cee déggoo également ci commission. politique dialogue euh, dialogue national non non su nekkee loi bi dafa ne dañuy appliqué parrainage ci élection locale amul fenn fu ñu waxtaanee ba signé benn décret bi nga xam ni mën na ñëw soppi loi boobu loolu mënul nekk te loolu amul benn loi bu ñu indi assemblée nationale pour ne euh, parrainage ci élection locale amatul. li tax Sénégal appliqué ko mooy en obéissance de la décision de la décision de la de de la CEDEAO su nekkee nag appliqué nañ décision CEDEAO boobu ci élection locale munoo ñëw dellu si nag tey ne da koy appliqué ci élection législative kooku amul sens. parrainage nag lañ xamul yéen lu ngeen ciy ragal bu ngeen bëggee dem di politique jongante foog ngeen nangu parrainage il faut que système de segg bi aussi mën a am bu ko defee yëf yi du am pëccëxu. loolu xanaa war ngeen ci mën d'accord nag. man man de nangu naa ni système segg moom defe naa loolu. kenn bañu ko CEDEAO meeg li mu wax dafa leer gis nga soo nee euh, électeur dafay pare parrainer benn candidat nee na loolu c'est une violation du secret du vote parce que munoon nga ne tey benn can benn benn benn benn citoyen mun na parrainer trois trois candidats bu boobaa euh, parrainage bu muy def du wane préférence am xam nga yooyu la le CEDEAO seetlu liñ bët ba ne loi bi dafay violer le le le le du code kon si c'est c'est moo tax mu daaneel ko. nekkul rek de dafa rejeter système système système parrainage donc loolu il faut ñu jàngat ko bu baax mënoon nga ne tey ne parrainage yow citoyen am nga sañ-sañ ne man Modou mbay mi ak faatu Ndiaye mi nangu naa ñu participer parce que jàpp naa ni li ñuy wax am na sérieux am na légitimité mais soo nee électeur dafay ne benn candidat yaa ngi koy forcer mu wax kan mooy préférence am te loolu c'est une violation du secret fond du, du, du secret du vote donc si yooyu la la CEDEAO sukkandiku te ñun loolu d'accord nañ ci waaye nekkul ni dañu bañ système mu parrainage. mais est-ce que li CEDEAO wax doon par rapport au secret du vote est-ce que ça tient mm-hmm. war na mën a mën a euh, day changer avis même en l'espace de vingt quatre heures. waaw mais mënoo ko forcer cest dire mënoo ko forcer pour mu wax. kan mooy candidat am xam nga ñu waxante dëgg. Hmm. tey sénégalais tey sénégalais bu fiy jóg di parrainer kan lay parrainer ku dul candidat am léegi loolu nga appliqué ko sur presque un million trois cent mille électeurs parce que soo nee am na vingt candidats. ku nekk war a comme d'accord leen ci parrainage citoyen ban seg ngeen bëgg kon yéen. non jox naa la exemple nee naa la tey un citoyen war na mën a ñëw ne man parrainé naa Modou Mbaye parrainé naa Fatou Ndiaye parrainé naa Ibrahima Seck loolu dafay wane ni ah man da jàpp naa ni ñii ñëwuñu pour caaxaan bu boobaa ñooñu bokk. mais soo nee obligation jël benn benn benn candidat loolu encore une fois sénégalais képp ku parrainé sa candidat nga parrainé soo ko appliqué encore une fois sur un million deux cent d'électeurs sur six millions kooku c'est presque si da nga dévoiler vingt pour cent des intentions de vote te nag loolu c'est un c'est un élément important du du, du scrutin mooy le secret du vote donc Sénégal li mu war a def rek mooy changer un modalité les modalités de parrainage Euh, CEDEAO lu mu ko wax nekkul ni parrainage nangu ko daf ko ne ni ngay appliquer parrainage méngoowul ak charte yooyu nga xam ni moo moo moo tënk euh, euh, vote moo moo tënk secret du vote loolu la donc euh, pour man. CEDEAO googu ñu ci tane Sénégal bëriwul de. Ah, waaw nangu ko nangu ko koom ci démocratie. waaye ñun ñun ñun suñuy jëm kanam waruñu waruñu méngale suñu bopp ak ki nga xam ne yaa ko raw ndegam dañuy tiitaroo ni ñun démocratie la ñu que dañuy tiitaroo ni moom comme li ngay wax nii dafa am dafa am ay dëkk yu bëri ñu leen raw nañ ci continuer continuer ba nga xam ni euh, institution bu mel ni CEDEAO bi nga xam ni président la république ak Macky Sall ak ay ñoñom ci leen sukkandiku pour sanctionner Guinée pour sanctionner CEDEAO mënoo sukkandiku ci CEDEAO boobu pour nag dellu si ne yow doo respecter ay décision CEDEAO. mais sanctions yi bokkul lii njiitu yee kay def bi cour de justice de la CEDEAO. waaw mais c'est toujours donc bii la ñu war a gën a tënku. waaw mais yëpp yëpp xam nga yëpp CEDEAO la xam nga tey soo nee yow da ngay topp yoon munoo ne man li ministère de l'intérieur dogal wala policier bi dogal duma ko respecter waaye lu lu procureur bi dogal dama koy respecter sooy respecter loi da ngay respecter loi. loi soo xasee ba nangu benn kuréel bu mel ni CEDEAO dafa am légitimité nga bokk si di di di di di ànd ci ci ñuy dogal dangay ngay respecter am ci lépp. Amadou Gueye njiital UNIS parti politique bokk ci opposition bi jërëjëf. merci jaajëf Georges ziar Cheikh Tidiane ak euh, gaa yëpp yendoo ak jàmm. En cette